maa ngi tudd Malick Cissé dëkk Kédougou di wuyoo ci Mor Cissé keroog ba ma eggee ci district bi eh, ah il faisait quatorze heures quatorze heures laa fa egg ànd ak benn euh, matron biñ ko référé ñu pour ñu ñëw ci gynécologue bi que de quatorze heures à seize heures ñoo ngi xaar gynécologue bi gynécologue bi egg si foofu seize heures bi mu egg see seize heures ñu jox ko kayit bi mu xool saa eh, mu ne ko saa sambeli ne ko dafa war a eh, wasin par paas ma ne ko kii ma warul woy wasin par waa paas parce que jàgg na. yow dem nga ko wax loolu. man wax naa ko ko man wax naa ko ko parce que sama jabar visite mi yëpp maa koy yóbbu man maay jëndi garab maa koy jox maa koy naan sama jabar sama complice la sama genn wàll la. Mhm. que huit heures lañ xëy ci sage-femme bi huit heures man maa ko yee ñu nekk ko ba quatorze heures mu door ñoo référé ci gynécologue bi bi gynécologue bi egsee seize heures mu nekk ko ma ne ko docteur kii dañ ko war a opérer kii dañ ko war a opérer tu dois la surveiller ko mu nekk foofu di forcer di forcer day bës sama jabaru doom eh, sama biiru doom te biiru jabar. biñ laataa ñoo jógee fii sage-femme bi fi mu koy référé dafa def yëpp mu jël constance yi jël seen affaire yooyu ñuy dugal seen teg seen noppi déglu ainsi de suite ma ne ko mais toi ça c'est pourquoi mu ne ma non lii c'est pour voir l'état de l'enfant qui est dans le ventre de sa ma ne pas d'accord merci beaucoup biñ egsee si district bi kooku tamit defaat la même chose la sage-femme la gynécologue bi def la même chose mhm. mu nekk foofu du forcer bi koy dugal bloc il faisait 17 h moins le quart mu nekk foofu ci biir bloc bi balaa maa départ mu nekk foofu mu nekk foofu ci bloc bi balaa maa génn d'abord ci bloc biir bloc parce que dañ maa dàq ci biir bloc bi mhm. anesthésie bi moo ma dàq balaa maa génn foofu sama jabar ne ma siise ma ne ko wooye mu ne ma kaay ma ñëw mu ne ma demal kër ga nga dolli ma benn drap ak benn complet pour en cas yi xale yi 17 heures bu ma génnewu 18 heures nga mun a indi xale yi ñu jël oto ñëw xool xool ma ma ma xool leen ma ne ko ok ma ne ko docteur ordonnance bi léegi. Mhm. mu ne ma non non demal defal loolu madame rek après boo ñëwee man je je prends tout en ma ne ko non jël tout en charge parce que sama jabar yow xaw ma la. Mhm. mu ubbi armoire médical mu ne ma am naa fi ay garab ma ne ko non bindal ma ordonnance. Mm-hmm. mu ne non sur le coup après boo ñëwee remboursé ma ma ne ko d' accord sama jabar ne ma Cissé bàyyil wax ji noonu demal te ñëw ma ne ko ok madame Cissé merci ma daal di ñëw sama kër en quinze minutes diggante district bi ak sama kër en quinze minutes ma dellu ma ñëw ma ne ko madame Cissé ñibbisi na man ma ok waaye ji ne ma alors génnal léegi ma ne ko ok merci beaucoup ma génn toog ci buntu bloc bi ma toog foofu ba dix huit heures dix neuf heures moins seen légère ñëw ubbi buntu bi di dugg. ma ne ko yow foo jëm ñi ñoo opéré non je travaille ici ma ne ko mais Makalu toi tu travailles ici tu es un médecin mu non je travaille ici dal. ma ko ok merci pardon Motok toog fi ma toog quarante cinq minutes après kooku dal di yor ben bocal fi de faire lire, bo aussi boo wasine fi ñuy defaree li dugal liir yi mhm. yor bocal bi ma seen foofu sama yëre jabar bi ma seen bi ma seenee sama yëre jabar ma xool ko j'ai visé mes yeux sur lui dama dugg ci biir maternité bi lu muy dugg mu ne femme kaay kooku sama koñ fii la dëkk. bi mu mhm. ne ne laras ndaw si ne laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah man ko sallallahu alaihi wasallam ya ya yaa wax loolu. man ma wax lol rek ba gi waaf. da nga top ci ginaaw dem dug ci biir. man ko me ki lan la wax mu ne ma no dara ma taxaw makalu bobu le makalu laa replier wat man ko makalu ana li nga yoron mu ma no va demander ça à la sage femme man ko lo wax ki mu ne ko je je l'ai rien dit man ko si ci a parlé li nga yoron, ya, anam. Manamo va demander à la sage-femme. ko merci. Matakaw yuhu, sage-femme. dal bi daw ñew manako ana li ki yoron ya, lan la yoron ya, mané ne ma non c'est le bébé mané le bébé mané ma mané ko il est où c'est le ou là mané ma c'est le mané ko il est où mané ma ngi fi kay ma and ak mom dugg mu pousse ma ben carton mané mais comment ça kii bokkal la dugal fii la pousse carton comment ça peut se passer Comment ça peut se passer mm -hmm. Vraiment, en tout cas, c'est ça qui l'a amené ici. Si tu veux connaître, c'est ça, ouvre. Madame dit, oublie carton, dit, sama yéré jabar, génné ko ubbi, fekk ñu taggalé bop bi ak yaram bi. Mhm. Bop bi à côté yaram bi à côté ma ko gis Bébé bi ci bopam. Barké salatul fatiha ma gis bébé bi. Mané ku mom li, mané mano non c'est ton bébé. Mané qui a fait ça? Mané va leur demander au bloc. Mané merci madame. Ma delu ci buntu bloc bi tok. 15 minutes anesthésiste gynécologue bi dans le mhm. va et vient va et vient. Mangi top, tal ben cigarette de tout. mu ñëw top, sama kan sama ben talal mu jël. ma jox ko briquet bi mu jël. dem ci bloc bi tux ñëwaat dellu ci biir bloc bi. bi mu duggee ci biir delluwaatee ci biir bloc bi. am ben waay bi bi c'est lui le gestionnaire du district le gestionnaire du district Ibra Diop mu ñëw dugg mais comment ça en pleine opération les gens font un va-et-vient dans le bloc là comme si c'était un marché Wadi ji ci nous ni mu amee temps di jàmmasante ak man avant ak jour boobu bokkul il a été radical mhm. mu dem yoonam ma toog jàpp sama après anesthésie bi tamit génn ñëw ne ma grand pardon kaay ma ne ko man mu ne ma waaw ma ma topp accompagné de mon beau-frère le grand frère de ma femme mu du mu buntu bi maka pour duggee pour dem ci maternité bi bureau gynécologue bi dem ci salle de garde bi uppus fekk mu tëji mu replier ubbi buntu fëgg daal di fëgg bureau gynécologue bi fëgg on comme ça gynécologue bi jaaree nañu ginnaaw jaar fi maka buntu sarale bi bureau dugg ci bureau kële ñëw fëgg ñu mu

mu ne fat noppi mané il a ko rendi comme ginaar tàggale bop bi ak yaram bi mu commencé di jooy anesthésiste bi commencé di faut c'est Mon beau frère bi ne ko loy joye comme que defu leen dara loy joye instant boobu la wo préfet bi le préfet de Kédougou Il la ko wo il faisait 22 heures sous la pluie jour boobu Kédougou il a plu une forte pluie le préfet est venu sous la pluie j'ai appelé les religieux, le chef, le président de la Ligue islamique, son frère. Je l'ai appelé, nous, Je m'ai appelé mes parents, j'ai appelé toutes mes connaissances, hôpital de terre, district de terre, ma wahle du am. Si le docteur vient nous recevoir près préfet du bureau, du bureau, nous, nous, nous, nous, nous, commencer à wax. Je le docteur d'Anfakat, prends tes responsabilités, lui, tout ça, Tu es irresponsable et immature. Nous, devons waxu kilifa affaire bi le la après ma dem sama mhm. le commissaire de police m'a appelé à à h minuit. Mhm. il est venu sur les lieux du drame. Nous mu dem ubi morgue bi. mu xol à vue le commissaire parle, accompagné de l'adjudant Benga. Mhm. et un autre adjudant. mu ubbi morgue il a constaté à vue œil le commissaire de police Mon mu dit, ok c'est bon l'État prendra toutes les responsabilités pour que cette justice soit faite. Je suis commissaire je suis ma commissaire Je suis ma en tout cas je dis bien que j'ai confiance à l'État du Sénégal et à la justice sénégalaise je ne ne t'en fais pas si on va on va on va faire notre travail Je merci le lendemain à ma à grande surprise gendarmerie woma.

vendredi monsieur Cissé oui euh yan moment nga don tal sa cigarette ak fan nga talé won sa cigarette ah mané yan moment nga don tal sa cigarette ak fan nga ko talé won yan moment ak fan ci biir bolom waaw cigarette bi fofu la tok ci buntu blog bi bama togué fofu be ni tuk na fa ay presque ci paquet euh, la yoron man je fume c'est pas interdit euh, ay wuñu bi nga talé cigarette ci buntu blog bi ma ne aaye wuñu la bi nga taalee cigarette ci buntu bloc d' opération bi. buntu bloc nekk j' ai fait hmm. je xam nga foofu dañoo yaa yàlla bloc am couloir am am des cabines man foofu la foofu lañ teg banc pour les patients. Hmm. man foofu laa toog. moom foofu la ma fekk. parce que ku sa mbokk dugg bloc foofu ngay toog. waaye. Hmm. alors faut mu que nous peut-être décision justice nous nous commenter, parce que le euh, euh, justice a commencé à faire euh, également ni placé sous contrôle judiciaire alors à votre niveau il y confiance bi nga confiance, ci y a mais je commence ça commence à installer le doute dans ma tête parce que je pense bien le contrôle judiciaire c'est pas ça c'est pas ça qu'il fallait dès l'instant qu'une personne est mise aux arrêts pour des crimes commis ils ont commis des crimes parce que sama dom ak sama jabar ba ñuy hôpital ñongi ngi dund di noy. mais buñ defee lolu ñom c'est pas ñoom waruñu agité au dem di def ay point de presse man mi man mi deele kay man ma waron dem point de presse mais négi à ma grande surprise docteur Danfaka muy genn di ne Kédougou ku fi c'est pour dimbale population bi xanaa Kédougou bokkul ci Sénégal xanaa Kédougou beneen réew la bok xana doomu Kédougou yi amuñu droit bi juddu amuñu droit am kayta juddu. amuñu droit problème moyen lay wax ci côté bobu ci beureub ba. Euh, monsieur monsieur Cissé. oui juste une question quoi. Uh-huh. Euh, bi nga avant nga ñëw ci centre de santé bu Kédougou. Uh-huh. ñaata yoon nga dem ci dispensaire bu Dalaba. gynécologue bii ci boppam. defal na écho sama jabar. non gynécologue bii. non même defal na ko ay échographie. waaw léegi ci jour bi mu matoon. fi nga njëkk dem noonu. waaw ñaata yoon nga fa dem. ñaata yoon laa dem ci district bi. waaw ci ci ci fi nga njëkk a dem. Dalaba Dalaba Dalaba. Dalaba hmm. mais Dalaba foofu la ñuy visiter sama jabar. sage boobu moo ko depuis bi mu jëlee ëmb. Hmm. te nu fi mu toll ni kooku moo koy visiter. Hmm. alors ci jour ñaata la fa dem. jour bi nga xam ne moom si la doon mucc da nga da nga njëkk a dem ñu ne la delluwaatal wala. foofu dem naa foofu huit heures. laa fa njëkk egg. moom moo ñu référé ci district il faisait quatorze heures. ok da nga boobu lañ egg. Oui, est l'âge. Oui. Nous avons dit que le même jour avant que dem ci poste de santé Bukedougou. Merci. Je suis le, le 29, je suis le 30, je suis -hmm. Le 29, mhm. le 29, le 30. Alors, le 29, bien demain. Euh, L'un comme information, madame, nous avons cette situation de mu ne ma des na. ñu ne la mat bi des na. mu ne ma mat bi des na. munul benn baaram bi munul dugg sax. waaw ok nga delluwaat benn baaram munul dugg loolu la sage-femme bi wax. waaw yéen delluwaat. mu ne ma dellu leen na dox ma ne ko d'accord. Mhm. mais le lendemain a huit heures. elle était un doigt. Mhm. le lendemain huit bi ngeen ñëwaatee. huit mu ñëwee bi ma ñëwaatee foofu ci poste de santé bi benn doigt fa lañ nekk ba quatorze mais ñom ñi di xol ndax euh, benn droit wala est-ce que ñom xamone nañ ne césarienne lañ wara def. mais ñom yakarna maîtresse sage-femme. mom mhm. moy def premier diagnostic. waaw dans les normes. mom moy def premier diagnostic d'or la référé ci gynécologue. ok compétence am fu mu yem fa lay yem parce que c'est le gynécologue qui est le chef de la maîtresse sage-femme. après ñur si lañ leen référé. une durée jang université beaucoup ok mais qui bouchez-le, qui hmm. mais je lance un appel au ministère de la santé et de l'action sociale. Vous hmm. dee mon avocat n'importe où, blouse blanche robe noire là, na état du Sénégal parce que Nini, on ne peut plus vivre dans ces conditions on ne peut plus vivre dans ces conditions. Euh, euh, peut-être peut-être dina tu teel nous commenter euh, décision justice parce que affaire de mi pareil, pareil nous. Mm-hmm. donc euh, man nga am waaw waaw vas-y. xam nga dossier Sénégal lañ mm-hmm. Sénégal say vous waxul deug way na xel. Mm-hmm. waxul na xel. ministère de la santé déplacé wu ñëw ba pour autopsie waroon nañ mais ma benn yoon. ils ont même voulu faire une référence. monsieur Cissé monsieur Cissé xam nga yow def nga def nga armée donc xam nga xam nga xam nga dafa am ñaar yoo xam ni du leen boole du benn muy audit muy audit ak enquête dafa am ñaari niveau yu bokkul audit ak enquête donc euh, euh, commissaire bi ñëw na ba constater est-ce que ñoom am nañu autorisation ubbi enquête wala déet est-ce que yëg nga ni ñoom ñu ngi ci enquête bi wala déet xam nga par bi li tax ma lu tax affaire bi xaw louche lu moo la say say waxul deug waaye yatt na xel fofu la doon ñëw le suspect xam nga quand quelque chose est suspect allô wa mmh, mmh. wa ñu lay déglu ce qu'ils ont fait Il y a eu suspect dès l'instant qu'ils ont voulu faire un audit audit ñaari parti la mmh. bo ñëwee ci service di auditer ñaari parti ngay ngay ngay ngay jël mais du ben version mais le ministère de la santé dafa ñëw a ay personnel nous wax rapport d'autopsie et à ma grande surprise malhonnête qu'ils sont nous avons jamais jabar mais c'est faux Nous, mosuñ wax ne sama jabar diabète. wax ne sa c'est pas vrai Moi, je le rapport là il est caduc et malhonnête ils, des gens de mauvaise mm-hmm. parce que parce que jigéen bu ëmb bépp am nekk neuf mois mais yaa moo ngi def bilan moo ngi def analyse man maay jëli résultat yóbbul ko infirmier bi yóbbu ko médecin bi man ñii maay def yëpp Kédougou yëpp xam nañu loolu sama jabar sama njaboot fu ñu toll ci man. mais dama gis ne ministère de la santé avocat di jaabal la bëgg a def.

je suis très disponible. ouais mani est-ce que euh, dafa am waxuñu euh, am diabète gravidique diabète bi nga euh, bu information par rapport à ça. jamais de la également. ils ne m'ont jamais dit cela. Mané sama jabar césarienne là. Hmm. césarienne là ok te te même district mais li nga xam ne. Mhm. xaw na nekk population qui est de bi. Mhm. moi, procureur de la République def les deux versions à l'écoute victime ni constitué au parti civil ak ña nga xam ne ñoom affaire mhm. procureur de la République il a les auditions des deux parties. linter procureur auto def garde à vue mom, mhm. mais si et seulement si il se retrouve en liberté dehors sur contrôle judiciaire la population les citoyens sénégalais veulent bafouiller le droit des Sénégalais. peut-être c'est trop tôt ñun c'est trop tôt peut-être euh, monsieur Cissé nga joxe conclusion boobu. non c'est très tôt parce que. procès eh, dina eh, Li, même d'accord mais xam nga saay saay yàqu waxul dëgg. waaye yàq na xel doo génnee nit garde à vue bu ko delloowaat kaso xam nga loolu gisoo guñ ko Sénégal. ok gisoo guñ ko Sénégal. ministère de la santé moi def suis i manigance. Mhm. elle est incapable de dee moom la moom mii le d'ailleurs ak avec son personnel wante.

page pub ah ñu tëj danga ngaa da ngaa <laughs> <laughs> daf maa def Cheikh Anta daf maa def signe lu bari bari bari ne ma temps bi temps bi temps bi mais bon parfois tam boo amee yenn il faut nga topp topp dossier bi alors comme na nag affaire yi dossier pendant la mu ngi ci mi ngi ci yoon yoon dina ci def liggéeyam.